APR. waaw APR. am na avenir wala euh, l'APR est est est est amené à se à waaw xam nga wolof Ndiaye daf ne ku la jëkk woon la réer maanaam bu ñuy jëlee la trajectoire du Sénégal depuis 1960 li nga xam ne mënees na ko jàng mooy ñaare partie bu ñàkk nguur pour mu dellu siwaat ci du yomb. socialiste yaa ngi daw ba tey de. Hmm? ma ne yaa ngi daw ba tey. waaw waaw mais dañuy daw rek ñëwaataguñ ci nguur buñ ci ñëwaatee dañoo ànd ak Macky Sall. Euh, donc kon bu fekkente ne la dal PS la dal PS dal PDS dal na APR mën naa yéexal seenu dellusi ci pouvoir bi wala dootu dellusi bon maintenant ni ñu amee defet mooy compliquer seen survie politique. xam nga su fekkoon ne dañu dem élection perdre à la loyale. dinañ mën a rebondir. oui woy danañ mën a rebondir mais ni ñu perte dafa am yu mu créé ci seen biir parce que ils n'ont pas perdu à la loyale. comment ça ils n'ont pas perdu à la loyale. oui oui oui ils pas perdu à la loyale. c'est-à-dire partie de la défaite de Benno Bokk Yaakaar ci Macky la jógee. moo ko orchestré. moom mooy. ci am des éléments de preuve. mais bien sûr. lan bu njëkk ba mooy d' abord le fait que mu doon jéem a dàq élection yi le 3 février. Mhm. mais ça a entraîné un rejet de l' opinion de de tout ce qui touche Macky Sall lu ko jege lu ne. Mhm. et Amadou Ba était victime de ce rejet de l'opinion parce que personne ne pouvait comprendre que président Macky Sall toog ba bis bi campagne war a campagne électorale war ko tàmbali mu naan day dàq élection. or en matière d' élection président bi ñaari yëf ñaari sañ-sañ rek la am bu desee juróom-ñett fukki fan mu mu fixé mu woote corps électoral bi fixé jour sur le scrutin le quarante sixième quarante sixième quarante cinquième ou trentième jour avant la fin de son mandat mu woote ko ba pare xëy xëy créer ay problème naan way crise à l' à l' assemblée nationale entre l' assemblée et le conseil il y a jamais l'ombre de crise di jéem a dàq élection yi mais a loolu mooy lu objectif loo xam ne mën nañu teg bët ne ça joue en défaveur de son candidat Amadou Ba bi ci des moom ci boppam toog nga fii ak koo ak koo fi éviter Abdoulaye Sow ministre. mu ne Macky Sall moo ko ne daa bëgg a changer candidat. Mhm. na mu ko waxee Abdoulaye Sow loo ko waxee ñeneen. Mhm. kon kay wax dëgg yàlla ñaar yooyu boo ko boolee rek da ngay xam ne. laa defee hmm? à dix jours de l'élection. à dix jours de l'élection. non xam nga man ci lii avant Abdoulaye Sow di ko gis. wax na la ko non non non c'est ça wax na la ko xaaral noonu waxuma loolu parce que man dama dem seeti ko parce que yëgoon naa ne ay problème am na ñëw seeti ko seeti Amadou Ba di jéem a defaree bi ma ko mujjee gis xam nga laa ko wax dama ne ko yow ak président Senghor yéen yàlla baaxee na leen da ngeen jóge ci nguur te du te du jóge ci defet te du ngeen folleeku ma ne ko yow nag li la wutee ak président Senghor président Senghor bi muy dem daa am article 35 jox réew yow amoo ko nga am or sa bu pertee seet du nekk défaite électorale ci sa bopp sa côté. ce sera politique et personnelle. kon li nga war a def mooy mobiliser wu wàcc ci terrain bi ànd ak sa candidat ba mu gagné quitte à ce que le lendemain nga commencé koo xeex boo gën a nga jàpp ne laa wor ba ma koy wax maa toog soxnaam toog doomam toog ak sunu xarit mu ne ma loolu laay def damay wàcc ci tere bi damay def damay def campagne li ma wax defu ko ça fait très mal. or man Macky Sall dàqoon na ma ci parti mi li la métti mooy lim la waxul ses vraies intentions. non non non loolu naqari na li ma gën a naqari mooy li mu def parce que nag quand même on a été là avec Macky Sall Macky Sall le 2007 la la tàmbalee jiite élection perte ci benn ba quatre bennoo perte parce que bokkul et puis li tam mooy c'est de la déloyauté envers son parti su fekkente ne waa APR dañu ko tànnal nu candidat. waa benn ne ko tànnal mu suñu mu tànn amadu Ba su demee bay changé amadu Ba daa war a dituwaat ci affaire ak benn ne leen damay changé candidat waaye waroon di rocc ay nit di leen ko wax. woo na Benno waa Benno Aminata Mbengue Ndiaye ak Moustapha Niass ne ko ñoom. Amadou Ba seen candidat non non non wax secrétaire exécutif APR ngay woo toog ne leen maa leen maa jëloon amadu Ba dindi naa ko dajale Benno Bokk Yaakaar. na mu leen nañu dajee woon keroog ba ñuy présenté candidat mu dajale woon leen doon ne leen maa Ba dindi naa ma ça ne me pose aucun problème mais le fait que mu di woo ay nit fii naan damay kii ça sedd de la déloyauté bi des nag mooy caay-caay gi waa Pastef def ci Sénégal 2000 2014 ak léegi indi ko fitna ci réew mi Macky Sall waroon naa jombale boppam di recevoir Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ci këram. kaña këram. mooy audience avant élection avant élection da ci am preuve. waaw xoolal bàyyi leen ngeen di wax. non non non non euh, dañ koy wax. dama ci donc recevoir na Ousmane Sonko ak Ousmane Sonko la jëkk recevoir ci ëllëg sa mu recevoir mu recevoir la ñoom mooy le fameux vendredi avant le vote du dimanche. bien sûr. d'accord. c'est c'est de la na conseil des ministres bi pour pour pour annuler décret bi annuler bi bi bi bi comment il s'appelle là. dissoudre passé bi dissoudre passé. dissoudre na ko mu bëgg ko faa def. conseil des ministres ay ministres yu gor nekk fi ne ko déet président lii xel xalaatu ko. mais def na ko. bien sûr mu dem defi ko samedi. ça de la déloyauté gis nga man ce pas de problème que sénégalais yi fal Bassirou Diomaye Faye mu nekk mu nekk camp pénal ñu dem génne ko mu dem prêter serment ça ne me pose aucun problème parce que li Pastef def ci lu bon ci réew bu ko Sénégal tànnee ba nekk seen ba bëgg mu ne nga nekk seen président waaye bi ci Macky Sall dugal dara ça c'est lui maintenant nag man dama dut boole loo ak loo ak la lan di benn ñu koy waxee ci la loo loo di le, le bébé avec l'eau du bain avec l'eau du bain ko def ci série 2 Macky Sall ki nga xam ne jox nañ ko réew mi 2012 Sénégalais bu ne mën a seet ni fi mu indi Sénégal 2024 moo gën fa mu ko jëlee woon du ma ko nié mukk ci àdduna par contre à partir du 3 février il a fauté envers le peuple sénégalais Sénégal jiwuñu ko loolu bennoo jiwu ko loolu et puis regardez ces jeunes la ñoo xam ne dañu àndoon ak moom am luy naqar luy neex ñu ànd ak moom ba mu gañee ñu ànd ak moom ba mu am ñaari mandat mu xëy xëy comme ça. boo naan am na benn ay benn benn directeur bu mu doon waxtaan la waaye Amadou Ba ne peut pas être l'héritier de Macky Sall ma ne ko ah Amadou Ba de bu nekkul héritier Macky Sall Diomaye Diomaye Faye mooy nekk héritier Macky Sall <laughs> c'est une folie ce fait c'est une folie malheureusement jox réew mi ñii. nga xam ne programme amuñu programme. mais boo naan nañu dàq Macky Sall pour delluwaay. ah mais da ngay da ngay xumbal wala. non xumbaluma si non nekkatuma ba nekkatuma affaire mais les statuts de l'APR. <laughs> da ngay xumbal waaye non les statuts de l'APR moo wax ne un militant de l'APR qui est de a dàq. or Macky Sall était de connivence Ba son candidat ne dafa dafa corrompre des magistrats mais Macky Sall dafa ànd ak ñoom ñu defee commission d'enquête parlementaire illégale. defaat beneen defaraat beneen proposition de loi projet de loi boo xam proposition de loi pour contourner l' de la constitution pour mën a dàq élection yi mais sëñ bi c' est de connivence avec l' la le PDS beneen connivence bi beneen connivence bi mooy la connivence avec le PASTEF c' est double double yooyu yëpp benn bu ci ne war naa a tax ñu dàq maintenant bon la mais mais mais Moustapha oui allez vous qui un habitué de Mermoz est-ce que mën nga ñu wax exactement Macky Sall ak Amadou Ba lan lañu jote au point que Macky Sall nekk à l'aise ci opposition radicale am. ko. waaw xam nga man bi ma gisee yëf yi di jaxaso. ñëw hmm? naa laaj président waxtaan ak moom jóge fa seeti Amadou. waxtaan ak moom grief yi ñu formule yi ci bëri nag dama la demande pas lan la euh, amadu Ba teggi na ko ba teg ko fële. teg. du ma wax du ma wax je ne veux pas dire ça dama ne rek laa wax du ma wax ne li ko Macky Sall teg li ko Macky Sall du ma du ma du ma dugg ci loolu. parce que man boo gisee ma doon ci dox. non wax nga doon ci dox. mais. lan la ñu jotee lu war a grave man su ma amoon élément objectif. yoo xam ni lii ñu lu ñu doon tumaal Amadou parce que léegi tumaal nañ ko ne wéy da doon waxtaan ak Sonko que wéy il avait prévu su gagné dana leen dugal Pastef ci gouvernement bi et que Sonko mën nañ ko jox ministre de la justice. loolu la Macky Sall. non non non Macky Sall waxuma loolu mais ça c'est des balivernes non je suis allé ne ko est-ce que yooyu loolu yaa ko wax mu tontu ma la ma tontu biñ ko jiiñee corruption bi ñu ne dafa jox 3 milliards charte Yann Coulibaly ak. ak Cheikh Ndiaye dama laaj ne ko ndax yaa ko def maintenant ci ci ne li ma wax ci ci corruption bi dëgg la yem ma foofu que man Cheikh Tidiane Coulibaly ni nekk mag magi Abdou Latif la nekk sama mag xaw ma ko nag mais bu ma déggee magi Latif Coulibaly ci lu mel noonu ma dama woo Latif ne ko grand lan moo xew mu wax ma lan ma wax que Macky Sall ci boppam sax nee na Cheikh Tidiane Coulibaly yoonu nekku ci bi ci des mooy Maymuna ak lu Macky Sall Amadou Ba mën a def Macky Sall du dixième ci Ousmane Sonko def Macky Sall ak lu makki Sall Amadou Ba mën a def Sénégal ça ne fait même pas le millième de ce que le Pastef a fait à notre pays Macky Sall bu mënee recevoir Diomaye Faye ak Pastef ak Ousmane Sonko à Mermoz war naa toog ak Macky Sall Amadou Ba ñu tirer les choses au clair. ak Amadou Ba ils se sont pas je le sais je le sais. moo tax man la comme bu mënee gisee ak ñii reykatu yii. kay war naa mën a gisee Amadou Ba parce que Amadou Ba mu yëguma fu mu jàpp def fi opposition gàtt gàtt def fi def fi martel combat. attention de en matière de diffamation le média est. auteur principal. donc bien sûr yow la ñuy woo. bu ñu woo may dem et d'ailleurs j'avais même proposé dans le code de la presse. <laughs> que quand il s'agit émission directe que l'auteur <laughs> soit le, euh, le média est auteur je l'avais dit mais, ni ñu defak offense ni ñu génnee offense au premier ministre oh, noonu la ñuy leneen ça ils vont arrêter ça duñ juróom-ñett fukki nit di faatu ki leen sooke du kenn ku dul waa Pastef Ousmane Sonko alal jiñ fi yàqu fan la jógee ab ab mortel combat bi wàcc leen ngeen jaay seen bakkan ndax ma nekk candidat mais mais pour en revenir donc encore une fois dama jàpp ne ak lu lu Amadou Ba mën a def rek euh, defut le millième de ce que le passif a fait et ce que Sonko a